mu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ñaanal yàlla di leen ñaan ngeen ñaanal ñu yàlla yàlla nañu yàlla boole ñu ñëpp yërëm ñu bi jaay seydi ruuj sallallahu alayhi wa euh, dikkaat nañ ci suñu tafsiir bu ñu baaxoo def ci waxtu wi ci waxtu wi fa tabaarakallahu ñu ngi koy defee fii ci juma an kappa euh, jumaa ji nga xamee mu ngi ci liggéey liggéey bi macha allah ba léegi ñu ngi ci kaw xam ngeen ni dañ ko defoon R plus léegi liggéey bi mu ngi ci CNAS euh, ñu ngi teg poudre yi kon su ko defee rek ñuy tàllal loxo jullit yi képp koo xam ne am nga tonu ciment walla saaku ciment walla kilo ciment walla fer wala pont walla béton wala xaalis loo am soo ko indee incha ñu defal la ko ci jumaa ji yàllaay nangu bi jaay sidi sallallahu alayhi wasallam yàlla na yàlla defal ñu jàmm mottali yéene yépp ñi ci def dara yàlla na leen yàlla fay ñi yéene te defaguñu wala amuñu liñ ko ci def yàlla na leen yàlla may li ñu ci def yàlla mottali seen yéene ndax innamal amalu bi niyaat kon su ko defee mu ngoog mooy liggéey jumaa ji ñu dem ci tafsir bi fa tabaarakallahu borom bi subhanahu wa taala ñu ngi ci suuratul baqara ci aay bi nga xamee ne aay cent quatre-vingt-seize waaw borom bi subhanahu wa taala di wax ne alxajju ashhurun maalumaatun alxajju aj aj ashhurun ay weer la maalumaatun yu ñu xam shawaal la ak zulqaadati wa asru layali zilxija wa qiila wax nañu kulluhu déng wer yep wala weer zul zilxijati bi yépp dafa bokk yàlla ne fa man farada képp koo xam faratal nga ala nafsihi ci boppam fii na ci weer yi alxaju aj kon falaa rafasa <clears throat> bu araamale ba pare falaa bu mu jonjo may bu mu ànd ak soxnaam te wala suuq bu mu def ay moy wala jidaala te bu mu werante fil xaj ci aj waaw dem ci aj rek nekk ci sa hôtel ngeen gurboo foofu lu nekk ngeen dugg ci loolu baaxul loolu santaane wuñ ko wa ma tafalu lépp loo xam ne jëf ngeen ko min xayrin ci yiw lu mel ne sarax yaalamuhu yàlla xam ne ko fa yujaasikum bihi yàlla dina leen fay dégg wa tazawaduuna ngeen wut yóbbal fa inna xayra zaadi li gën ci yóbbal yi nag at taqwa mooy ragal yàlla waxoon nañu ci ñetti palaas yàlla bo subhanahu wa taala da bëgg taqwa bi muy wax kutiba aleykum siyaamu kama kutiba alal ladina min qablikum laallakum tattaquun la wax yàlla farataal na ci yéen koor ni mu farataalee woon koor ci ñi leen jiitu woon waaye laallakum ngir yéen tattaquuna ngeen mën a ragal yàlla ndax taqwallahi ci weeru koor ni koy xamee mooy ki nga xamee ne dafa am euh, alalam jënd rabetaay ma def firigoom ba mu fees dell ay fruits ak i ay lekk te yow bëccëgu weer koor ñemewoo ko laal ndax taqwa boobu moo tax nga laaloo ko kon loolu yàlla dong moo ko mën a xam waaw li so soxna lew na la sa lekk yaa ko yaa ko jënd sa alal yépp lew na la ci jamono jooju nag sañoo ko laal ndax yaa ngi ci weeru koor te ku woor sañoo lekk sañoo naan nga bàyyi koo loolu ngir yàlla kon loolu mooy wa loolu mooy taqwa sañoo ko laal moo tax loolu nag borom bi subhanahu wotaala taala moom dong moom dong moom moo xam euh, biiri nit ñi ak seen biti moo xam ku woor moo xam ku woorul parce que nit mënu ko seedeel nit danga gis mu woor rek waaye xamoo li ci li ci euh, biir mais borom bi subhanahu wa taala kon moom moo dañ kump li nekk ci dënn nit ñi ci seen yéene moo xam ki woor ak ki moo tax yàlla borom bi subhanahu wa foofu dafa wax ne bépp jëf doomu aadama ñeel na ko ba mu des koor koor nag maa ko moom wa ana ajizi bihi man maa koy fayal sama bopp ndax foofu kenn yëru foo lu du ko dul borom bi subhanahu wa taala suñ ko délégué woon malaaka walla nit mun na am du xam nit ku woor ak ku wóoru waaye yàlla moom mi dañ kump ci lépp moom moo xam aji woor ji ak ki nga xam ne wooru moo tax moom dong moo ko mun a fay yàlla nañ yàlla fay suñu koor su ko defee soo demee ci aj mu ne wa tazawadu fa inna xayra zaadi taqwa bi na ngeen wut yóbbal waaye yóbbal bi ci gën mooy ragal yàlla lépp looy def te amul ragal yàlla du am jeexit du baax kon yàlla jëf ji yépp ragal yàlla rekk la ci la ci bëgg beneen bi bu mu demee ci tabaski mu ne lan yanaala llaha luhuumuha wala dimaa'uha walakin yanaaluhu taqwa minkum yàlla de xar mi lu mu duuf duuf lu mu rëy rëy dara du ci àgg yàlla dara du àgg ci yàlla du yàpp wi du deret ji waaye xam àgg ci yàlla ragal yàlla def santaane borom bi subhaanahu wa taala loolu rek te nga def ko ngir yàlla la ko sant loolu rek mooy àgg ci yàlla ragal yàlla gi kon ñetti yëf a ngi fi aj koor tabaski yàlla loolu yépp yàlla neen euh, ragal yàlla rek laa ci soxla waaye soxlawuma ci leneen yàlla du lekk du naan soxlawu ci dara waaye ragal yàlla gi moo yàlla santaane moo tax yàlla nee na wa ma tafaalu min xayrin yaalamuhu llah wa tazawadu fa inna xayra zaadi taqwa wattaquuni na ngeen ma ragal ulil albaabi yéen borom xel yi laysa déet aleykum di war leen junaaxun bakkaar an tabtaxu ngeen sakku fadlan ngëneel من ربكم tukkee si seen borom waaw ko defee nag aj nga ba pare mën nga def commerce dégg nga waaw commerce ndax nga ndagam aj nga ba pare fala baasa bi tijarati bil xajj in kaanat laa tasxuluhu an afwalihi waxtulifa hal tijarat tanqusu sawaabal xajji ah tanqusu sawaabul xajji aw aw laa qaala baaduhum إن كانت التجارة أكبر همه ومبلغ علمه أمله سقطت سقط سقط الفرد عنه وليس صوابه كمن لا قصد له إلا الحج ñu ne su fekkee ne ne def nga aj ba pare matal nga say farata yépp nga simmeeku nag parce que léegi simmi ngeen laa baasa aayul nag ko am nga xaalis indiwaale nga xaalis nga dem defi commerce nga dem jëndi loo xam ne soo ko su la neex nga jaay foofu walla soo ko indee ba fii nga jaay ko loolu benn la su fekkee ne nag euh, am nu ñu wax ne su fekkee ne ne commerce bi yitteelu ko ba tere ko ay faratam waaye wuute nañu ci commerce ci aj ku aj boo xam ne di def commerce ndax yoolam yoolu ajam dafay wàññeeku wàll al déet am na ñu wax ne su fekkente ne commerce gi moo ëpp doole ci soxlaam moo ëpp doole moo gën a jéggi dayo ci ay jëfam maanaam loolu la jiital kon euh, tiyaabay aj bi dafay euh, dafay dafay rot walaysa lahu sawaabun sawaabuhu walaysa sawaabuhu kaman laa qasadahu kon moom tiyaabam du yem ci ki nga xam ne aj rek aj rek moo ko fi indi moom lay def defar deful leneen ñoom du yem koo xam ne ñëw nga ji aj si waaye commerce moo moo ëpp li nga ci sa sa yitte kooku du yem ak tiyaaba ak ki nga xam ne moom aj kese loolu ko indi moom la def dégg nee nañu nag isa stawal amrayn su fekkee ne ne ñaar yépp yem nañu yittee yittee ko yittee aj gi ak aj gi ma yittee bi ak yittee aj gi ñoo yem ci yow maanaam daal benn benn benn benn ba demul bàyyi ci bàyyi moromam bu booba fala zàmmun amul ŋàññ wala maduxun amul tag deng wa in kaanat ndem nek na nak at tijaratu taban lil xaj su fekkene commerce bi mo top ci aj bi nga bi mu ajé ba pare lay soog def commerce bi deng faqad jaaza faqad haza koku de lakna na dunya wal akhirah ki nga xam def na ajam ba mu mot xam dara desul léegi mu dem soog a def commerce kooku de am euh, làq na dégg nga euh, xayru dunia yiw àddina ak ay yiw alaaxir an tabtaxu ngeen def ngeen sakku fadlan wërsëg min rabbikum wu tukkee ci seen borom bi tijaarati fil xaj waaw fa iza afattum su ngeen bëbboo nag min arafaati ngeen jóge arafa بعد الوقوف جين جين دين غناو تخاو جين عرفة فاذكروا الله نجين تدو يالا بعد المبيت غناو فنان جين ندنج بالمزدلفة تي مزدلفة جين تدو يالا بتلبيتي تينا الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك waaw mooy labbayk wa taalil ak allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asiya wa du'a ak ñaan inda al mash'ari al harami ci fi ñuy wax jabalul axir jabalul muzdalif dégg wadkuruhu na ngeen tudd yàlla kama hadakum ni mu leen xamale maalimi diinihi mandaraka ay diinam wa mas wa manasika xajjihi xajjihi wa in kuntum nekkoon ngeen min qablihi jëkk yàlla di leen jubal la min adallina bokkoon ngeen ci way réer xamuwoon xamuwul xamu leen woon ni ngeen di aje su ma topp afidu na ngeen jaar afidu na ngeen bëbbu na min xaysu afada annaasu fii nit ñi bëbbu bu jëkk waa Quraysh su nit ñi jógee Musdalifa di ñëw wala Arafa di ñëw ñoom dañuy beru jaar beneen côté su ñëwee fi ñu war a euh, tuddee yàlla ñoom dañ koy remplacer di tagg seen maam yi di taggu kenn ku nekk di kañu waaw yàlla nee bàyyi leen loolu na ngeen jaar fi ñépp jaar te wastafirullah na ngeen jéggalu yàlla bi zunubikum tukkee ci seen bakkaar ndax inna allah yàlla kat xafurun jéggalaakoon la lil muminin ñeel jullit yi waaye raximun aji yërëm bihim ci ñoom wa ida qadaytum su ngeen noppee ah, su ngeen doog defee su ngeen defee seen farata seen manasikukum seen jaamu yàlla dégg su ngeen noppee ci seen jaamu yàlla fadkurullaha na ngeen tudd yàlla bi takbiiri wasanaay takbiir ci màggal yàlla wasanaay ak tàgg ko dégg ka zikrukum ni ngeen doon tuddee abaakum seen baay yi aw ashad walla mu gën a tar zikran ci tudd dégg nga fa mina naasi am na ci ñañ man ñi nga xam ne yàquwul dañu wax ne rabbana suñu boroom aatina nag ñu jox nasibana suñu cër fi duniyaa ci àddina waaw ku ñaan sa cër ci àddina yàlla su la ko joxee alaaxira moom amoo fa cër parce que li nga waroon am alaaxira ñaan nga ko ci àddina yàlla jox na la ko ñooñu wa maalahu walla kooku wa maalahu ki ñaan cëram ci àddina yàlla li nga may jox jox ma ko ci àddina kooku su ko yàlla joxe ci àddina wa maalahu ñeelu ko fil aaxirat ci alaaxir nag alaaxir nag min xalaaqin ci cër parce que cëram jox nañ ko ci àddina moom daal dafa bëggoon nekk boroom xam-xam dafa bëggoon nekk siiw dafa bëggoon wërsëg dafa bëggoon dafa bëggoon dafa bëggoon li mu bëggoon yàlla may na ko ko loolu la ñaan kon soo ko ñaanee ñu jox la ko fi ah su ëllëgee amoo fa dara wa minhum am na ci ñooñ man ki nga xam ne nag yaquulu dafay wax rabbana suñu borom aatina yàlla na ñu may wala yàlla na ñu jox fi dunyaa ci àddina xasanatan xéewal wa fil aaxira ak ci laaxira xasanatan nga defal ñu àjjan te waqinaa nga fegal ñu azaaban naar mbugalum safar ku yàlla defal lii kay defal na la lépp waaw ku yàlla jox yiw xéewal ci àddina may la àjjana te fagal la safara wax dëgg yàlla dara desutul dara desutul ulaayika ñooñu lahum ñeel na leen nasibun cër min ma kasabu ma yool min ma kasabu ngir li ñu fàggu dégg ci aj gi ak ñaan gi wallaahu yàlla sari aji gaaw la alxisaab ni muy as euh, ni muy ni muy réglé jaamam yi waaw wadkurullah na ngeen fàttaliku yàlla wala na ngeen tudd yàlla fi ayaamin maadudatin ci ayaamin maadudatin ayaamu tashriq mooy ñetti fan yi tabaski ak bés bi ci topp ak bés bi ñetti fan yooy na ngeen tudd yàlla mooy su ñu jullee suba tisbaar ci lañu tàmbalee dina allahu akbar ñeenti yoon deng ba ci ñettel bes bes bes bi moy moy ayyamu tashriq ayyamu tashriq moy bes bi nga xamne dañ ci tudd yàlla deng nga hmm. faman taajjala képp koo xam dafa anticiper moy gawtu fi yawmayni ni ci ñaari bes bi mu dem sanne ci jamra mu jeex fala isma ali fala isma deet bakkar ali di ko war wa man taaxar ku yéexe nag ba ci ñetteelu fan bi mu dem sànni euh, ay xeeram may jamram fala isma alayhi moo itam bàkkaar amu ci dégg li ma ti ñeel ki nga xam ne dafa ragal yàlla fi xajjihi ci ajam li annahu xaajun dégg fi lxaqiqat moom aj na ci dëgg-dëgg wa taqullah na ragal yàlla wa alamu na ngeen xam na annakum yéen tuxsharun def na leen fànga ilay jëm ci moom ci fil axira ci laaxar fa yujazikum mu daal di leen fay bi amalikum seen jëf wa min annaasi am na ci ñooñ man ki nga xam ne yujibuka dina la yéem qawluhu waxam fil xayaati dunya ci dundi àddina am na ñoo xam ne am na koo xam ne su jàkkaarloog yow lum looy wax wax ji ni muy neexe wax ji ni muy jube da ngay yaakaar ne loolu moo nekk ci biiram fekk nag li muy wax ak li muy li muy jëf du benn kooku daloon na ku ñuy wax axnas dafa doon jege yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ni yonent bi sallallahu alayhi maa la bëgg maa la bëgg dama topp di wax di wax ndekki làmmiñ wi dafa neex waaye naafiq la benn bis mu génn rek mu ñëw fekk Euh, juru juri jullit yi juri jullit yi ñu da mu daal leen gor tànk yi fas yi mu gor tànk yi mu dem ci seen naaf yi tàndarma yi ak yu mel ni dugub yo mu daldi taal ko nag daw teg dem dégg kenn xamul ku ko def dégg yàlla ne moo tax aay bi wàcc wa min annaasi am na ci nit am na ci ñoñ man ki na ki nga xam ne yabudu yujibu ko dina la yéem qawluhu waxam fil xayaati dunya ci àddina ndax wax ji neex ji wa yusidu llahu dina seedeel seedeeloo yàlla ala ma fi qalbihi ci li nekk ci xolam billaahi wallahi maa la bëgg billaahi talla yooyu soo ko toppee ci nit ñi hmm? dara amu ci dara dara waaw soo teewee mu akolaat nuyu la akolaat la waxal la wax ju neex ngay ki yaakaar ne soppe la te soo demee li muy teg ci sa der maanaam day teg ah ba bëri na moo tax waxoon naa ko mu ne am na ñoo xam ne soo leen gisee ñuy ñuy ñuy ñuy ba seen ba ñuy génn ah waxoon naa leen ne hmm, muuñu ñu de dañuy siiñ dañuy siiñ siiñ ak muuñ nag du benn Mm-hmm. Mm-hmm. li Serigne Cheikh waxoon na am na ñoo xam ne ku leen wàjjal seen mbokk ñu lekk ko am na ñoo xam ne ku leen wàjjal seen mbokk ñu lekk ko wallaahi wax na dëgg ah? te itam gis nga ku la xamul mënuloo noonu su la noonu itam mënu la dalay contre rek mënu la ci mënu la daara daara daara mais kii ka gën a garaaw mooy sa mbokk moo la xam ki la xam moo la mën a yàq te parce que li mu la waxal dañuy wax ne di wax na dégg ndax moo ko xam su ko defee mu waxal la ko doonte du dégg ku la gis rek moom yow loolu rek la lay xooli soo déggee ne euh, Aliou soow ku baax la ku yéwén la ku tel-tel wax ci ñoom ko yu baax ñu toog fii di waxtaan Aliou romb fii su ñëwee kee mooy Aliou ñu ñépp loolu lañ koy xoole liñ ko wax lañu koy xoole waaye itam soo ko waxlee safaan itam su rombee fii ba solu ba jekk su rombee asalaamaaleykum su demee ñu ñépp safaan wi rek lañ ko xool moo tax waxal nit lu bon yàq soo ko waxee rek yàq nga ko yàq nga ko waaw yàq nga ko gis nga wax naa ne nit ku la xam sa mbokk rek moo la moo la mën a yàq ki la xam rek moo la mën a yàq laaj ko weñ weñ ah weñ weñ bi mu dëgëre bopp kenn mënul ko dara laajal ferrailleur yi ah, ku ñuy indi dañuy indi bant dañuy indi xeer pour dàgg weñ ku ñuy indi mbokkam mbokkam lañuy indi mu dàgg ko du noonu garab ah su taxawee garab lu mu rëy rëy rëy rëy dañuy indi semmiñ soo ko tegoon fee semmiñ Euh, yuur yuur yuur bi lañ ko yuur xaw moom donc mënul garab gi dara mbokk mi moo ne mbokk garab gi moo ne xaaral ma nekk mas bi maas bi nga dugal ko ci kii pour pour pour ah, du mbokkam <laughs> ah nit kay mbokkam rek moo moo ko mënal dara mbokkam rek moo ko mënal dara hmm. ndax moo ko xam ndax moo ko xam waaw moo tax naar bi biñ ko waxee gis nañ sa mbokk am lu mu ci tegoon de mu ne kooku yàlla na deewaay ah <laughs> wa yushidu llahu danal seedeeloo yàlla alaa maa fi lu nekk ci xolam te wa huwa aladul moo gën a tar ni werante ak mbañeel dëng wa iza walla su jógee foofu su jógee ci yow sallallahu alayhi wa sallam dox fil ardi ci suuf si li yufsida ngir mu yàq fiihaa ci suuf si wa yuxlika rey euh, wa yuxlik muy alak muy lakk alxarsa mbéy mi wan nas la ak xar yi ak béy yi ak nag yi ak fas yi muy dàgg seen tànk mooy axnas moom te wallaahu yàlla laa yuxibu lu bëgg fasad yàq yàlla bëggul yàq la yarda bihi te du ko gërëm wa iza qila lahu taqilla suñ ko waxé suñu waxé lahu ñeel ko ittaqilla ragalal yàlla fi fiiliki sa jëf akhazatuhu jàpp ko al izzatu reey dëng al izzatu jombu jombulu al izzatu reey reeylu fa hasbuhu doyna ko jahannama jahannama bi bii sa al masir al mihad لاليا wa min annaasi am na ci ñooñ man ki nga xam ne yastari dina jaay nafsu bakkanam ibtigaa ngir sàkku mardatillahi ngërëmal yàlla wa huwa suhaybu lamma azaahu almusrikuun haajara ila almadinati wa taraka lahum maaluhu wax na ne aay bi dafa wàcce ci ku ñuy wax suhaybu lamma azahu bi nga xamee ne tooñ na ko sonal na ko almushrikuuna yéefér yi haajara mu gàddaay ilal madina jëm ci madina wa taraka lahum maaluhu mu bàyyi leen alalam yépp mu bàyyi leen dem fekki ji yonent bi salallahu alayhi wa sallam wallahu yàlla raufun aju ñeewantal la bil ibaadi ci jaamam yi dégg nga moo tax innamal amalu binniyaati innamal amalu binniyaati innamal amalu binniyaati innama li kulli imri فمن كان حجرته إلى الله ورسوله فحجرته إلى الله ورسوله ومن كان حجرته للدنيا يصيب بها أو امرأة ينكهها فإنما حجرته إلى ما حاجر إليه mu ne gàddaay bi mu amee nit ñi di gàddaay yonent bi sallallahu alayhi nee na jëf yépp jëf yépp ñu ngi baaxee ci yéene yi képp koo xam ne rawale si diine dem ci yàlla dem ci yonent bi sallallahu alayhi moo tax nga gàddaay kon loolu rek ngay am ci sa gàddaay gi yàlla ak yonent bi ngay am ci sa gàddaay képp koo xam ne sa gàddaay nag àddina moo tax danga xat fële bëgg mat mattali li fële sa àddina walla kat am na ndaw soo xam ne danga ko noboon mu nekk fi ci màkk te ay waajuram gàddaay nañu ànd ak moom te soo fa demuloo doo ko gis doo ko takk nga gàddaay ngir moom ah fa innama hijratu ala ma hajar ilay li nga am li nga li nga yéene ci gàddaay gi rek ngay am ci gàddaay gi waaw kii yàlla ko tax a gàddaay ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kii pouvoir àddina moo tax mu gàddaay kii ndaw si ndaw si moo ànd ak ay waajuram gàddaay te soo demul du sotti nga gàddaay ngir moom yàlla ne kenn ku nekk li nga li la tax a jóg kenn ku nekk li la tax a jóg waaw yaa ayuha alladina amanu ee ñi gëm yàlla udxulu na ngeen dugg fi silmi walla fi salmi boo ci wax baax na bi fati siini wa kasriha kaafatan kaafatan ngeen dugg ci lislaam gépp lislaam gépp waaw du gëm li bàyyi li déedéet dangay dugg ci lislaam sooy dugg ci lislaam dangay dugg ci lislaam tout doo ci bàyyi dara waaye dugg ci lislaam ba pare te bàyyi woo bida bàyyi aada yi ah? maanaam soo defee genn walla lislaam genn wàll bida genn wàll lislaam genn wàll aada kon duggoo ci lislaam kaafata su ko defee nga nekk jullit ba pare di dem di tuuru doo dem ci tuur yi ci tefes yi tu tuuru walla ci guy yi di tuuru yooyu yooyu bokkul ci lislaam loolu bokkul loolu bokkaale la loolu bokkaale la waa ci lislaam xamul tuuru ah ah yooyu yëpp baaxul ndëpp tuuru yooyu yëpp dara baaxu ci hmm? waaw su fekkee ne danga nga def nusk nga rendi xar jaamoo ko yàlla yàlla lii de dama la ko jaamoo sarax la dama ko jaamoo mooy sacrifice li mu ci jublu nag yàlla na nga wéral sama doom ji walla na nga wéral sama rakk ji waaye loolu nusk rendi kii gàtt def ko sarax ngir mel ni mbir walla soxla walla kat yow danga am projet boo xam ne boo bëgg mu antu nga def nusku ko moom ak sarax moo mooy yem nga def nus ko sarax bi moom mooy rendi rendi gàtt la walla rendi ginaar nga togg ko saraxe ko te yàlla tax ñaan yàlla ne yàlla lii ma def dama ko def sarax dam ko def jaamu yàlla ngir nga faj sama soxla loolu loolu dara newu ci waaw loolu mooy nusk nusuk waaw alifa nuska wal ibadata wal xalwata tiflan wa hakaza nujaba ci xam yi ak benn yooyu dafa baaxu kon sooy dugg ci lislaam dangay dugg ci lislaam gépp gépp gépp waaw waaye dugg ci lislaam du ma sangu alarba du ma fóotu alarba dañu tukki alarba dañu tukki talaat dukki loolu loolu lu mu doon loolu lu mu doon loolu amul fenn ci sunna alquran ak sunna li gis loolu amul ci ay téere suusi yooyu nga xam ne ah te ñooñ ñi nga xam ne dañuy gaaflu dañuy gaaflu ay bés ñooñ ñi nga xam ne jëkk yonent bi sallallahu alayhi wa di ñëw dafa am ñoo xam ne ay bés ay mbugal moo wàccoon ci ñoom ci seeni yonent waaye dañu doon weddi dañu weddi woon seeni yonent yi moo tax mbugal yooyu wàcc ci ñoom bés yooyu nag walla ñu daal ñu ñu ñu xam nuñ ko kii ñu ñu rëbboon leen ñu soppi leen ñu nekk ay golo walla nekk leneen bés yooyu dañ koy gaaflu waaw ñun bokkuñ ci ummatu Muhammad sallallahu alayhi amul ay bés yu ñu gaaflu amul amul waaw jour ak ah, kay jour bi nga xam ne sa kër dafa mos a lakk alarba la lakkoon rek nga neen ba bés bi dafa am gaaf déedéet dafa am ay gaaf ci yow ne keroog jour boobu seen kër di lakk jour boobu maa ngi ngénte wala maa ngi tàkk jabar alarba boobu am déet wala maa ngi am benn chèque boo xam ne maa ngi ko tiire bi mu ko tiire bi mu ko tiire maa maa ngi jaar supermarché ko xam nga ne bés boobu ci yow la bon waaye wala keroog la soxna sama soxna am doom am doom doom bu góor wala ñaari seex walla jour boobu seex ci laa doon ngénte ñaari seex yu góor xam nga ne ci yow la bon waaye man bonul bonul ci man kon bés bu bonul amul benn bés bu bon bés yépp a baax bés ba mës a jooy ci bés bi am na ku ci reetaan du bés bi nga amee naqar am na ku ci kontaan kon du ci bés bi waaw su fekkee ne ne bés boobu maanaam daal masalan bés boobu dañ koy dañ koy gaaflu alarba ñu ne alarba kenn du ci tukki alarba kenn du ci tukki ndax defa ay ay gaaf waaw ñi tukki ñi tukki am am am am ay problème ñi tukkiwul nag da nekk ci xéewal xanaa alarba bi concerné wu leen am na loo xam ne xel xel xel xel xel rek nga koy atte du sax doo dem sax ci téere yi xel ah kon nit suy dugg ci lislaam day dugg ci lépp ala ne wala tattabiu bu leen topp xutuwaati seetaani ñalli cheytaani ñalli cheytaani yoon yi ndax seetaan la lakum ñeel leen addu woon noonu la mubinun bu biir noon boo xam ne mu ngi tàmbalee ci seen maam aadam ba léegi mu ngi leen topp kon dafa ngem bu rek topp leen te du tekki ngembam mukk moom cheytaani moo bon kon ñu teg foofu suñu baaraam yàlla na yàlla def ci ñun dégg ak topp yàlla defal ñu xéewal ak tawfiq ak taysir yàlla nangul ñu suñu koor yàlla fajal ñu suñu soxla yépp yàlla musal ñu ci covid 19 yàlla na yàlla jële fi feebar bi te wuutal ko ay xéewal bi jaay sayyidina sallallahu alayhi wasallam yàlla def ci ñun dégg ak topp asalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh